waaw en tant que superviseur euh, distribution bi sa se passe très bien en tout cas au sein de la Médina les gens sont bien organisés amul benn problème ku ci nekk rek boo amee sa bon yaa ngi ñëw jël sa denrée dans les règles de l'art et puis gisuma ci benn xëccoo wala benn problème wax dëgg yàlla. xam nga recensement bu ñu def rek la te dafa amoon ciblage donc ñooñu. lañ koy jox et que amoon na comité boo xam ne moom moo doon gérer loolu donc pour man daal amul benn en tout cas ci li ma mais lu ma yëgul moom mënu ma ci prononcé ma ko jàngatee mooy euh, ñëw na fekk ñu fi gis na ni daal euh, Médina ñëpp booloo nañu te rafetlu na loolu quoi le fait ñu nekk benn ànd pour le même objectif mooy jox ñi nga xam ne daal ñoo moom denrée yi ñu jox leen ko euh, dans la plus grande ñun loolu rek lañ bëgg yëpp jaar ci yoon mu bañ a am benn coow quoi. tey mbas dafa am feebar am. te ñu war a jógandoo xàcceendoo doorandoo donc comme feebar dafa am ku nekk daal sa appartenance dañ ko war a teg fële ñu ànd booloo pour xeex loolu mu jóge fi waaw loolu rek mooy objectif bi.